African vibes. Nanufagaro coronavirus. Nanufa. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Bathily dëkk Tambacounda juddoo fi màggee fi eh, bon en fait di rafetlu président de la république son excellence Macky Sall déclaration bu mu def nii du koy rafetlu bu baax a baax eh, boo xoolee sax loolu da koy yéex a def parce que tey lu mu def nii daf ñuy aar aar suñuy njaboot aar suñuy kilifa yi. parce que tey lii bu mu naroon a am si dëkk bi dafa yàgg parce que tey boo xoolee yeneen dëkk yi def nañ ko yàgg na ñoom boo xoolee depuis 6 heures si soir la ñuy dugg seen couvre-feu yi ñun boo xoolee tey président may nañu lu bëri 20 heures c'est bon heures baax na nit ki boo yeewoo 6 heures du matin ba 20 heures war nga mën a régler lu nga war a mën a régler xanaa lenn beneen affaire laay déplorer mooy koo xamante ne tey boo amoon ordonnance war a génn dem si mbedd bi dem war a dem pharmacie wala dem hôpital urgence léegi loolu nan la ñuy mën a am ban la ñu mën a am si kooku lolu lay jéem a ñaawlu tuuti mais sinon à part ça lepp lu mu def ci ndigal bi baax na ah man de lumay demander population bi nañ nangu ndigalu président de la république parce que tey lolu moy signe moy signe moy signe aar moo ñuy aar suñu njaboot mooy aar suñu kilifa yi moy aar population bi. ba paré lumay gëna bëgg sax li bu jallé sax li da war continuer dafa war am continuité am commission civi, bo xamante ne ndax suñu dëkk bi set dëkk bu setee rek am naat te bu dëkk naatee lepp lo xamante ne lu ñuy ñaan dañ koy am. loolu laa amoon lu may wax wasalaam. African Vibes. nañu faagaru ci coronavirus nañu faagaru.